ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di am mbégte bu baax a baax ci bis bi nga xamee ni at mu jot ñu amal ko fii ci kër Soxna Maam Issa ak lu Café muy journée jaayante bi nga xamee ni waajtaayu Porokhane képp ku bokk ci fédération Ahlu Café indi sa jaayante moo xam xaalis moo xam ceeb moo xam sukkër wala diwlin wala soble ak lu mën di doon ñu di ko indi di ko dajale soxna maam sa mbakke nag Allou kafe xam ngeen taxawaayam ci liggéeyal Serigne Touba liggéeyal soxna maam Diarra Bousso waaye ku ne xam ne taxawaayam itam ci li nga xamee ni moom mooy Porokhane moo tax ba fédération yi ñu ngi nii mboolem daayira yi ñoom ñëpp ñu ngi nii waaye ki nga xamee ni mooy kilifa jotaay muy sëñ Modou Kara Mbacke moom sëñ Modou Fati Xari ñu koy nuyu bu a jàpp naa ni daal Serigne Mortala Kane jàpp naa ni daal Serigne Moustapha Niass tey jii bis la boo xamee ne nii bis bu spécial la muy jaayante xam ngeen ne jaayante nag buñ ko waxee moo sos lislaam ñi jaayante woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu waxantee jaayante mooy ñu tàllaloon seeni loxo sëriñ Touba ca Mbàkke Kajoor jaayante tey de nag loolee la sonoment isa di feddiliwaat moo tax képp ku bokk fédération ahlu café tey da nga indi sa barkeelu ñu jaayante ko ñu fas yéene waajal li nga xam ne mooy Poroxaan noo ngi ñaan yal nañu yàlla yóbboog jàmm ñu del seeg jàmm ci barke sëriñ Touba nekk communicateur soxna Mame Issa Mbacké fédération Ahlu Café mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu baax te di leen siyaara ci bis bu tedd bi nga xam ne bisub jaayante la ñu woote ko ci ndigalal soxna Mame Issa Mbacké Ahlu Café Touba Euh, muy bis boo xam ne at mu nekk fédération bi amal ko euh, muy lu am solo ndax ci la ñuy dajalee bépp addi boo xam ne bu jëm ci màggal ak Porokhane la moo xam ci wàllu alimentation moo xam ci wàllu xaalis moo xam tam ci wàllu matériel yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu màggal gi. Euh, mboolem fédération bi ñëpp teew nañ wëllëre yi ñëpp teew nañ njabootug Serigne Touba gi ñëpp teew nañ njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ñëpp teew nañ seex euh, ma Massamba ñëpp teew nañ kon wax dëgg yàlla ñu ngi am mbégte bu baax a baax a baax a baax te ñaan yàlla mu nangu liggéey bi ndax jaayante dafa doon loo xam ne saxaba yi euh, dañu ko defoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa waaye itam mag ñi def ko ak Cheikhul Khadim muy loo xam ne lu am solo la Touba ah loolu moo tax nag ñu woote ko fii tey euh, ñëpp teew kenn ku nekk def sa kéemtalaal kàttan ci joxe li nga man kon nag ñu ngi leen ciy sant te di leen ci gërëm tey ñaan yàlla ci barkeb Cheikhul Khadim mu nangu liggéey bi te làqal na ko fu àggut maam Jaara mi nga xam ne moom lañ ko wooteel te moo tax ñu daje fi mu nangul lu liggéey bi te defal ñu di ko njort. te làqal na ko fi yàqagut ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul soxna si nee na mi ngi sant njabootu Serigne Touba gépp di sant bokki taalib yëpp di sant soppe yi di sant daayira yi ndax gis na ne lépp lu mu woote rek dañuy ñëw def ci luñ mën ak luñ mënut te Serigne Touba daa wax ne ku ko defal loo man mu defal la loo mënut ku ko defal loo mënut mu defal la jomb ñoom nag def nañ ba def luñ mënut kon Serigne Touba dana leen fay lu leen jomb kon nag ñu ngi sant yàlla baax a baax a baax ah di soññaat suñ bopp di soññaat bokki taalibe yi ci liggéey bi ndax liggéeyal maam jaara moom euh, tawféex rek la ci ab julit ndax maam jaara moo fi indi sëriñ bi su doonutoon ak moom kon duñ am sëriñ bi te bu sëriñ bi amutoon dara du sotti kon nag ñu ngi sant yàlla di sant yonent bi di sant sëñ Tuubaa di sant soxna jaara di ñaan nag màggal gii yàlla nañ ci tàbbe ci bismillaahi rahmaani rahim yàlla nañ ko àggale ci alhamdulillaahi rabbil alamin te yàlla nañ ci dajeeg tawféexi sëriñ Tuubaa suñ borom defal ñu ay tawféex ko ci lépp ko ci xam-xam soxna si nag bëgg na ñëpp jàng alxuraan jàng xasida def ay lixlaas def ay istixfaar def ay basmala lépp ñu def ko addi maam jaara ñaan suñu borom mu dolli ay leeram te taasu ci barkeem ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm. asalaamaaleykum ñun mbokk jullit mbokk taalibe yi ñu ngi fii fas yéene waajal poroxaan ji di nuyu sëñ Modou Kara ay sëñ ay sëriñ Touré ñun ñëpp ah, am tawféex. gin ko fekke yal nañ ko yàlla fekke ñoo gu ahlu kafe gépp di ñaanal sëñ di ñaanal soxna ma sa Mbàkke sa borom yàggal ko fi di ñaan sëñ Mbaye Maana Sarr xalifa Cheikh Babacar Sarr yàlla yàggal ko fi mu wér barke Cheikh Babacar Sarr ah, sant bu baax a baax a baax ci liggéey bi nga xam ne maam jaaram Bousso suñ borom waajal ko ci mat suñ borom waajal ko ci fit soxna maam jaara Bousso suñ suñ borom waajal ko ci maandu suñ soxna maam Jaara Buso suñ suñ borom waajal ko ci lépp loo xamante ne nii ah, ah, dana jëriñ doomu aadama rek eh, maanaam suñ suñ borom waajal na ci waaye di sant sëñ moor Kan mi nga xam ne moo nekk làmp Fall moom itamit te fu ñu taxaw waa ahlu café mu taxaw faak ñun muy Sarsara muy njaareem màggalu mag ñi fu ñu taxaw mu taxaw faak ñun kon ñu ngi sant ñëpp. leen sant bu baax di leen xamal ni moom lu am solo la. Euh, soxna maam jaara moom bis bi bu jógee fu jigéen nekk rek war naa dikk yeesalaat boppam ndax jëf na ci yoo jëf na loo xam ni senegal bu ñamee jàmm moo tax ndax Serigne Touba mii kenn wut payam kon nag bu ñuy màggale maam jaara fu jigéen nekk rek war ngaa jàpp ci bis bi jaayante nag buñ koy def mooy jaayante mooy bëggutu ko sas da ngay def la nga war def ba noppi jaayante waat nag fab saalal teg ko ca ngir bis bi kon nag lu ci waaye def rek sa bopp nga ko defal kon nag ñoom ci ci yi ñëpp di leen jaajëfal ah, soxna si daal mi ngi sant ñëpp di leen gërëm kum gise kum gisut jàppal ne accès nga ci moom ndax euh, fee mu toog ñu ñoo ngi ci wetam di gis nit ñi di ko jàmmal seen talag nit ñi di ko di ko di ko di ko jàllel nit ñi mbooloo mi nag bari na ba ñëpp ñu àgg ci moom waaye nag ku ñu gis rek mel gis ko kon nag ku fi teew ku nekk ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla may ñu tawaat ngeen déwén te yàlla matal lépp ci barke Sëñ Tuubaa jërë ngeen ak soxna maam Issa Mbacké soxna si ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaar la euh, bàyyi la nga nuyoog askan wi waaye suñu laaj bu njëkk mooy gis nañu ne euh, waxtu wu jot booy waaj poroxaan euh, lu mel ni dina am ginnaaw boo nuyoo ba noppi ñu bëggoon a xam yi la ji li tax nga mi daje fi tey parce que yéen ànd ak waaw asbilahi mina seytaan rajim waaw ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat Serigne Touba mi sunu yaakaar yi tey ëllëg di yeesalaat bu baax sunu njëbal Cheikh Massamba mi sunu bunt Serigne Touba di am mbégte bu baax nag si jotaay bi nga xam ne jotaay jaamu yàlla la di jotaay sunu yonent bi sallallahu alayhi wa muy bis xam dañ koo def muy bisu jaayante soxna jaara tey Porokhane dese une semaine at ma jot mbooloo mépp nañ tase kenn ku nekk indi li nga jaayante soxna jaara waaye yaakaar naa at ma jot day faw ko ma jot di sëñ Tuubaa wax na sama tey ju ne gàccal na sama démb tey ku fi ñëw ku nekk sa yaram daw na xam nañ ni li sëñ Abdoulaye doon wax sëñ Tuubaa xamul nawet bu nangu xol yi nangu la xam mooy lii ndax réew mi ni mu mel ak ni mu mettee ci nit ñi ak jigéen ñi jii ku ñëw rek war ngaa xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek wóor te lii nag li koy mayee nag mooy liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo koy may waaye laneen mayoo te day mel ne jaayante dafa bokk ci yoonu murit waaw jaayante dafa bokk ci yoonu murit ci jamono saxaaba yi ba ci jamono mag ñi àndoon Sëñ Tuubaa ñëpp dañ daan jaayante nit nag bu tolloo bu toogee ba war naa jaayante ak boromam kilifaam ba xam fa mu toll ci moom ak gis nañu sa diggante ak soxna jaara da ngaa waxoon ne da sa bopp soxna jaara booy wàcc soxna jaara wàccaay màggal soxna def yow xanaa mbégte rek wàccaay màggal soxna jaara ni def ci man moom mënu ma koo wax sax ndax daa yaakaar naa adduna bi bis boobu moo bokk na ci bis ma gën ndax tey ku teew fii rek xam ne waajtaay màggal soxna jaara mooy lépp ndax lii duy caaxaan lii du ay caaxaan te ay caaxaan mayeewu ko takk sa ndigg nag di liggéeyal soxna jaar te caaxaanoo boole woo ci kaf boole woo ci re te dëggal ci biir ak ci biti rek moom moo koy maye li muy def ci man mooy mbégte bu mag ferte bu mag a mag boo xam ne ku ma xool tey rek xam ne bég naa sa diggante ak fédération Ahlu Café. ah fédération Ahlu Café xanaa mu amee leen ak cant nag bu baax ma leen a fay ndax waa Ahlu Café kenn ku ne xam na ni ñoom ay xidmakat lañ ndax at mi yëpp amu ci benn bis bu ñuy noppal bis bu nekk rek ñi ngi indi seen doole ak seen alal di ma jox waaye nag rawate na bis bii tey di waajtaayu Porokhane nag ci la ñuy gën a génne lépp lu jigéen dencoon tey génne na ko indi ko fi kon waa fédération Ahlu Café amu seen pay waaye nag Sëñ Tuubaa am na pay na neen soo ma defalee loo man ma defalee loo mën soo ma defalee loo mën ma defalee lu la coom. ndax mën nga ñëw tënkal tuuti ci ni nga fas yéene màggale Porokhane. Hmm? programme bi mën nga ñëw tënkal tuuti ci ni nga fas yéene màggale Porokhane programme bi. waaw xanaa màggal Porokhane daal li ci njëkk mooy gis nga ni ñuy def fii wàcc ay kaamil jàng ay xasida xool ko nag semmal sellal suñu jëmm ba mu set ba mu ba mu jekk ñu sellal suñuy xol suñu demee ba Porokhane fas yéene fa màggal màggal goo xam ne day tegu ci sunna di julli waxtu juróom di jàng alxuraan di jàng xaside lu ñu mën def ay istifaar salaatu ala nabi ay basmala lépp lu ñu mën ñu def ko addiyeel ko soxna jaara ndax loolu mooy bis bi ndax soxna jaara ba mu fa nekkee dafa boole woon liggéey bu métti ak jaamu yàlla kon buñ demee ñun liñ fas yéene def mooy liggéey ak jaamu yàlla ak euh, jàng xase dundal waxtu juróom yi ak berde loolu lañ fas yéene def comme ni ko soxna Jaara daan liggéey foofa daal lañ fa yéene jaar ci ay tànkam boole koog nag di jëfee ndigal di di moytu ay tere ndax soxna Jaara mën nañ ni keppaaram école la woon wala daara ndax ku sàmm woon la ku fegu woon la ku fonkoon ko ko yàlla boole woon ci kaw suuf muy Maam Mor Anta kon bépp jigéen bu jóg di màggale Porokhane war ngaa bàyyi xew ci jëf jooju soxna jaara doon def ca Porokhane mam jaaram mam jaara ma yaa tooram